ci chaîne YouTube bi ICFA TV bayna xawsay ni ñuy encouragé ñëpp ñu abonné ci ndax xam nga téléphone yi mémoire yi dafay fees bu ko defee bu ñu abonné ci chaîne bi dina tax notification yi ñu di ko jot waaye dina tax tamit ñu mën di delluwaat ci euh, bind yi waaw bindi yi weesu yëpp ñu ngi ci eh, chaîne YouTube bi ICFA TV nga xam ne mooy chaîne eh, officielle bu Islamic Cultural Foundation of America masjidul muhajirina wal ansar ñu ñaan sama borom mu boole ñu defal dégg defal ñu topp te baaxal suñu biir baaxal suñu biti ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni ñu ngi ba léegi ci buntu laab bi ñuy faram fàcce xeetu laab bi tuddoon nañ laab ci toj ak laab ci sobe laab ci toj ñu tuddoon ne ñett lay ci ñett lay amee muy njàpp muy sangu farata muy am tiim tey nag ñu bëgg a waxtaanee njàpp ñu bëgg a waxtaanee atte njàpp gannaaw bu ñu waxtaanee lanay jàpp lanay njàpp waxtaanee it ay farataam ndax bu ñu tuddee njàpp war nañ xam yooyu war nañ xam lan mooy njàpp lanay atteem lanay farata ya lanay lanay mandoobaat ya ci ñi tàqale sunna ak mandoob lanay makruhaat ya lanay nawaqid ya yi koy yàq ak lanay condition ya njàpp ci lugal arabiya baat bi mooy alwuduu alwuduu nag mi ngi joge ci atu gi firi taar di firi ak cet ko ànd leer alxusnu wa nadaafa ci sharia nag mooy jaamu yàlla ci jëfandikoo ndox ci ay cër yuñ xam ci façon buñ xam attaabudu lillahi taala bi isticmaali lmaai fi aadaain maxsuusatin ala sifatin maxsuusa jaamoo yàlla gu amee ci jëfandikoo ndox ndox ma ñu jëfandikoo ko ci ay cër yuñ xam ci yaram wi ci anam ak melo wuñ xam ate mooy farata lu warla la ci képp ku julli wala ak lu nekk ci atey julli farata la lu war la ci képp ku julli walla ak lu nekk ci attey julli la cay tegtal mooy laaye ja ca suratul maidati suratul maida mooy juróomeelu saar ci alquran laaye ja mooy juróom benneelu laaye ca saar wa ya ayuha alladina amanu ida qumtumu ila alsolati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxuu bi ru'usikum wa arjulakumu ila alkaabayn fii yàlla ngi fiy tudd ni ki wara ki namma julli ci ñun na raxas kanamam na raxas ay loxom ba ci coñcam na masxa boppam na raxas ay tànkam ba ci doojoor yonontu ne yàlla du nangu julli ku toj le la jàppuut laa yaqbalu llahu salaata man ahdatha xata hadis jàng muslim numéro 223 boroom xam-xam yi jullit yëpp dëppoo ci atte bii ñu tudd ci njàpp farataay njàpp nag am na yuñ ca am yuñ ca yiñ ca dëppoo mooy yi alquran tudd ci ngiro abu xanifa te ñeent yi ñooy farataay njàpp raxas xar kanam raxas ñaari loxo ba ci conci masxa masxa un quart bopp rubu bu ñu xaajee bopp bi ñeenti xaaj benn ba ak raxas ñaari tànk ba ca doojoor ya ci Abu Hanifa te su fekkee ne danga raxas bopp ba mu doy niki yeneen ngir yeneen ci yeneen maanaam ci lenn ngir dana ñëw ci atte boobu ci détail ñoom it soxlawul nee nañu Euh, ngay wutiwaat meneen ndox su fekkee ne sa loxo yi des na tooy tooy ci ba nga raxasee sa loxo ba noppi mën ngaa masa aye tooy tooy boobu rek loolu détail la ñu bàyyeegum ko noonu kon daal ñeent yi ñooy farataay njàpp ci ngiru Abu Hanifa ñoom yéene defuñ ko muy farata ci njàpp sunna la ñoom boo yéenewuloon it boo jàppee dem julli baax ci ngiru suñu sëriñ ñun muy imam malik rahmatullahi alayhi waaw ñeent yi mooy farata ay njàpp ci ngiru abu xanifat raxas kanam raxas ñaari loxo ba ci conc masxa rubu muy eh, un quart bopp one quarter eh, ak raxas ñaari tànk ba ci doojoor bu dee ci ngiru imam malik faratay njàpp juróom-ñaar lañ yéene raxas kanam raxas ñaari loxo ba ci conc yi ànd ak conc yi ndax bu ñu waxee ilal mirfaqayni borom xam-xam yi dañuy préciser ne maal mirfaqayni ngir nga bañ a bàyyi conc yi masxa bopp yépp raxas ñaari tànk ba ci doojoor yi méngale moom ngeen di tuddee gaaw ak rag ni ko boroom ibnu ashir indee te suñu mbokk imam ibrahim mahmud ibrahim eh, Diop ca eh, Lozuville bëgg ñu di ko citer toujours ndax ku bëgg ibnu ashir la ne faslun faraidul wudu faslun faraidul wudu sabun wahi dëlkun wa fawrun niyatun fi bat ihi faslun faraidul wudu sabun wahi دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفطرا أو استباحة لممنوع عارض وغسل وجه غسله اليدين وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين aha aha kon juróom-ñaar yi mooy farataay njàpp ci ngiru sayiduna malik rahmatullahi alayhi bu dee ci ngiru imam Shafi'i rahmatullahi alayhi farataay njàpp juróom benn la bu njëkk ba mooy yéene ñaareel ba raxas kanam ñetteel ba raxas ñaari loxo ànd ak ñaari conci ya ba masxa lenn ci bopp ak lum néew néew ci ngiru imam Shafi'i loo masxa ci bopp ba rek mu doy ndax baaga ca biiru osikum ñu ne sax bu jëloon ndox sax sotti ci ab xaaj ci ko ci ab xaaj boppam mu doy ko su raxasoon bopp bi it au lieu mu di ko masa mu doy ko waaye dafay nekk xilaaful awla mooy def na lu wuuteeg li gën a xëy xilaaful awla bokkul ak makruh xam naa usuli yoone yi tabarkalla dinañ waaw ba ca topp mooy at tartibu bayna al a'daa'i al madkurati fi l toftale diggante cir yii nga xam ni ñoom la alquran tudd gis nga toftale ci ngiru abu xanifata ak ci ngiru malik rahmatullahi alayhi du euh, du farata waaye <clears throat> mhm, ci ngiru imam malik toftale cër yi alquran tudd farata la nim ko nekkee ci ngiru euh, imam ahmad ibn hanbal daan ci agsi bu dee ci ngiru imaam ahmad ibnu hanbal juróom benn mooy farataay njàpp raxas kanam te jëlee nañ ci riwaaye ci ñoom ne raxas kanam kanam dafay yóbbaale galaxndiku ak soraxndiku moo tax boo déggatee kuy wax faratay njàpp lim galaxndiku ak soraxndiku bul gaaw de am na fu mu ko teg ndax ñoom dañoo jàpp ne kanam dafa yóbbaale bakkan dafa yóbbaale gémmiñ kon nag galaxndiku ak soraxndiku farata la dañ ko boole ci farataay njàpp loolu nag wutee nag li ëpp ci borom xam-xam yi ndax yonentu sallallahu alayhi dafa boole ñaar yi ci xisaalul fitra xisaalul fitra ñu nekkoon sunna la ñetteel ba ci farataay njàpp ci waa kër imam ahmad ibnu hanbal mooy raxas ñaari loxo ba ci conc yi ñeenteel ba masxab bopp bi yëpp te ñoom kët dégg nga bàyyil xel ci loolu li may bëgg a wax si dañoo boole ñaari nopp ci bopp ndax hadis ja dañoo boole ñaari nopp ci bopp moo tax ñoom masaxa nopp moo masaxa bopp ñoo am xatte farata la ñu ne bu fekkoon ne <clears throat> karaw gi karaw yi bopp dafa gudd ba ci doq wala mba ci ay mbaggam kiy jàpp la tollook bopp ba rek lay masaxa waaye li wàcc du ko masaxa loolu nag wute nag suñu e, sëriñu ngir wala suñu ngir muy malik yetu ñoom dañ ne karaw gi lum gudd gudd dañoo war a masaxa lépp waaw ngiru ahmad ibn hanbal tamit boo raga sa boppit mu doy ci chartaab nag nga rombale loxo ci kaw bopp ba ànd ak cibel ànd ak eh, cibel gis nga ci eh, ngiru shafii yu ànd ak xilaaful awla fii nag ànd ak karaxatu mm-hmm. bi ci topp mooy raxas ñaari tànk ànd ak ñaari doojoor yi mm-hmm. bi ci topp mooy toftole ñoom jàpp nañ ne boo raxasoon ñaari loxo ba ci ñaari conc yi soog a raxas sa kanam jàpp la yàqu na loolu la jàpp loolu it la waa kër Shafii jàpp mu wuteeg malikiyatu ak ahnaaf yi ñoom jàpp la dana baax ànd ak cibel ndax toftale cër yii sunna la ci ñoom bi ci topp mooy almuwalaatu ni ko malikiyatu yi waxee muwalaatu mooy méngale wala mooy gaaw wuuteeg shafiiyatu ak ahnaaf ñoom waalaatu muy méngale wala gaaw sunna la ci ñoom aha di nga gis ne tamit yii ngir dañuy tudd yéene boole ko ci farata yii ngir duñ ko tudd ku mel ni abu xanifata daf ko def sunna ku mel ni malik daf ko def euh, farata ku mel ni shafii daf ko def farata waaye xanaabilatu yi ñoom dañ ko boole ci shuruut yi maanaam bokkul ci njàpp li kon charte la loolu jar naa xàmmee kon nag waxtu wi mi ngi gudd ñu tënk ne farataay njàpp ci waa Abu Hanifa te ñeent la raxas kanam raxas ñaari loxo raxas rubu'u bopp mooy un quart bi astaghfirullah masxa rubu'u bopp mooy un quart bi ak raxas ñaari tànk ba ci doojoor ci malikiyatu yi farataay njàpp juróom-ñaar la yéene raxas kanam raxas ñaari loxo ba ca conc ya masxa bopp bi yépp raxas ñaari tànk ba ca doojoor ya méngale ak gaaw ci waa kër Shaafi'i juróom benn la yéene raxas kanam raxas ñaari loxo ba ci conc ya masxa lenn bopp lum néew néew toftale diggante cër yi njàpp yiñ tudd ci alquran ci <clears throat> eh, waa kër Ahmad ibn Hanbal juróom benn la gis nga Shafi'i juróom benn la waa kër Hanbal juróom benn la waaye wuute nañ nag bu njëkk ba mooy raxas kanam ba eh, kanam gi yëpp ñu boole gàllaxndikook soroxndiko ci benn riwaaye ci kanam raxas ñaari loxo ba ci conci masxa bopp yëpp dañu boole ñaari nopp ci bopp naka noonu raxas ñaari tànk ànd ak doojoor yi toftole cër yi e, njàpp yi nga xam ne alquran e, tudd na leen toftole cër yi e, njàpp te wax naa leen ne ñoom galax ndiko sorox ndiko ci benn riwaay dañ ko boole ci farata yi waaye nag waxuñ ne bi ngay raxas kanam nga koy def ni nga xam ne noonu la ko yonent bi daan defee noonu nga koy defee gannaaw boo raxasee sa loxo ñetti yoon nga lax ndiku sa lax ndiku fiiru soog a dem ci kanam gi juróom-benneel bi mooy li ñu tuddee muwalaatu ñu bokkle kook malikiyatu yi wuutee ceeg shafiyatu yi ak ahnaaf yi nga xam ne dañ ko def sunna kon nag loolu la ñu indi woon tey hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba subaak jàmm